اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي نيجي بعد دلنا زيارة بقدر في نيجي دل سواس نيجي درس يندن فلا الدجال كتير بينو هداية المستفيد في أحكام التجويد تدري بيجا خمني مو جنجالة أنا بيجا خمني سلني جنجي القرآن بندي بيجي مجيون جل ñu ngi woon ci benn bunt bu xawoon gudd di maxaarijul xuruf nga xam ne mooy jàngale xaraf bu ci nekk fan lay génne ci diggante tuñ ba ci put diggante boobu nga xam ni fala xaraf yi di génne yi di génne ci put yi di génne ci jawf nga xam ni moom mooy jawful fam nga xam ni moom mooy li nekk espace bi nekk ci biir gémmiñ xam ne làmmiñ bokku ca am yoo xam ne ci làmmiñ lay génne xam dafay composé xanakul ala ak xanakul asfal am yo xam ñi ngi génné ci digënté ñaari bañ am yo xam ñi ngi génné ci tuñ bu ko defé yi nga xam ni mom lañ mujjé won jàng mooy ñetti xaraf yi muy huruf as safir di as-sad ak sin ak zaay bu ko defé tay dañuy yeggali inshallah buntu bi tay ji xaraf yi nga xam ni ñooy génnee moy al نيونجو المخرج المخرج المخرج الثالث عشر على نيون فكوك نتيل الجن وعيب المخرج الرابع عشر وما يخرج منه ما نام آه، فكوك نتيل الجن وعيب تحرف بنلة أكيد حرف نيو في الجن المخرج الرابع عشر موي الطرف اللسان ما من طرف اللسان maanaam fukk ak ñettee fukk ñeenteelu génnewaay bi mooy xaraf yi nga xam ne ñi ngi génnee ci catu làmmiñ wa atrafi thanaya al ulia ànd catu bëñ yi nga xam ne ñoo féete ci kaw waaw euh, maanaam catu bañ yi féete ci kaw ak bañ yi ne féete ci suuf ci gàttal daal mooy làmmiñ bi da koy deg ci diggante ñaari bañ yi féete kaw ak yi féete suuf ñun ñoo fay génnee allah xaraf allah moo fay génnee ak ak sa ak ak zaal ñetti xaraf yooyu ñoo fay génnee ñoom ñett ñoo bokk fu ñuy génnee muy zaaun ak saaun ñoom ñett yooyu fa génnee waaye boo koy wax nag lamiñ bi day tegu ci diggante ñaari bëñ yi waaye bëñ ci kaw rek lay laal boo xoolee boo boo defee boo essayé nga xool da nga gis ne lamiñ bi laalul bëñ ci suuf sa ni ki noonu rek zaal waaw dégg nga yooyu ñoo fay génnee mu ne wa yuraa inda inda xurufi lithawiya moom la ñuy tuddee al xurufu lithawiya danañu sàmmwante xaraf yooyu boo koy génne boo koy tudd allaa yaxruju juzun kabirun waadixun min al lisaani inda nutqi hadihi al xuruf mooy nga fexe ba sa làmmiñ bi cat li rek ngay teg sa ka sa digg sa si si bëñ ci kaw cat li kese ngay teg nga fexe ba bañ a génne làmmiñ bi lu bari loolu am na ñu koy def léegi-léegi surtout ñi nga xam ne dañuy doog a tàmbalee jàng ñi leen di jàngal ijji boobu mun nañ koo jéggale ndax xale surtout bu fekkee ne xale la bo ko wanul loolu du ko xam waaye bo demee ba ci biir nag nañ ko tàggat na xamal ko ni catu làmmiñ bi rek mooy génn yaa xam ni génn làmmiñ bu bari na zaalun zaalun loolu takalluf da cee nekk takalluf mooy teg sa bopp coono loo xam ne ngeen sant la ko zaalun boo un nag moom boo ko ci defee sax moom day fekk day fekk day tax xaraf bi doo ko tudd tudd wér boo ne raa un raa un gis nga kenn dootu xam li nga wax dégg nga mu ne wal asaxu an yudaau lisaan an yudaau tarafu lisaani ala tarafi thaniyatayni al ulwiyatayni li gën a wér daal mooy sa catu làmmiñ bi ngay teg sa kaw si bañ ñaari bañ yi nga xam ne ñoo féete kaw mooy yu mag yi moom la olaf di tuddee daba mooy bañ yi nga xam ni fa la sakra yàlla di feeñee diggante ñaari bañ yooyu bañ yi nga xam ni lele leeg nit bu feeñee li fe nit bu ŋebee wala ma xawa ubi gemiñ tuuti ñaari ba ñoy di feñ mo bu lay tuddé ak taniyatayn al ulwi al ulwi al ulwiyatayni ñoom ñooñ foom ngay teg sa bi daal di tudde thaun zaalun ak daun dégg nga beneen mooy adamu ittikaa il fi wasatihi ala muqaddami al xanak inda ixraaji hadihi al xuruuf beneen nga fexe ba sa bi na nga ko teg foofu nga xam ne foofu moo foofu la xaraf bi di génne bu fekkee ne tegaloo fa salamin bi rek beneen xaraf ngay wax loo xam ne bokkul ak yii maanaam bu fekkee ne tegaloo salamin bi sa bañ si suufu bañ yi nga xam ne ñoom ñoo féete kaw saaun bu fekkee da nga koo teg ci biti da koo teg ci ginnaaw ci ci xanak bi nga nga saaun nga wuute na ak saaun moo tax bu fekkee da ngay jàng alquran fekk xaraf boo xam ne saaun la nga jàngee ka saaun xamal ne da nga yàq baat bi te da yàq maanaa bi نيكن يعني ذال بوان زال وبو بنن بنن بنن معنى عندي ضاء يعني زاء زاء الجسم ده بنن بنن معنى عندي دينجا من فالمخرج فقط من اللسان مع الثنيتين العلوي العلويتين مام دال بين جن وارجل ام موي فان موي آه، لم نيغا تكو تي سوفو بن ييغا خامني نيوم نيو فيتي كاو موي نياري بن يوي لي المخرج الخامس عشرة فكك جرمي المخرج بي min batni shafa moom mi ngi génnee ci biir tuñ waaw bu ñu nee biir tuñ tuñ bu fekkee ni nit tëñ na gémmiñ gi kebale na ñaari tuñ li nga xam ne mooy feeñ moom la ñuy gis moom lay moom la ñuy tuddee zahiru shafa moom mooy biti tuñ li nga xam ko nag loolu la ñuy tuddee biir tuñ mooy li nga xam ne mooy lu xonk li dégg nga wa yaxruju minhu maa atrafi thanaya al ulya ànd ak bëñ yi nga xam ne ñoo féete ci kaw biir tuñ bi ngay jël bañ yi féete ci kaw teg ko ci lan moo ciy génne wa yaxruju minhu al faa faa faqat xarful faa foofu lay génne gis nga boo ko essayé di nga xool ni ngi boo waxee faa da nga gis ni sa bëñ yi nga teg ci nga xam ne mooy sa tuñ bi fi xonk fi sa bëñ yi nga teg foofu daal di tudd xarful faa benn xarf rek moo fay génne dégg nga euh, <coughs> mu ne wa yuraaya faa faa it danañu sàmmanteeg buñ koy tudd al ictimaad ala aljuzi ala aljuzi rutab min alchafa mooy fexe e, ba ictimaad nga sukkandiku ainsi nga fexe e, e, teg sa bëñ bi ci fi nga xam ni moom moo tooy ci sa tuñ bi fi nga xam ne fa à chaque fois foog fekk sa tuñ day tooy mooy biir tuñ bi nga fexe ba sa bëñ yi nga teg ko foofu faa kon nga liñ ciy déggee mooy ni biti tuñ bi kenn du ci teg bëñ fa boo ko di nga tuddu harf fa waye li gëna wér moy nga tekk ko ci biir tuj bi ta loolu moy mom moom moo di gën wér benen bi moy adamu tawsii makhraj al fa bi hayth yashmulu shafa bi akmaliha moy nga baña fexe makhraj bi bañ nek lo loo dang ko yaata koo yaatal lool mooy lan jël sa bañ yëpp tekk ko ci tuñ bi fa fa gis nga loolu takalluf la takalluf la ak teg sa bopp coono deng nga te ànd ak kee nga xam ne moo ko tuddee nee ñu ko waxee li muy wax muy gën a wér yow li nga def <coughs> euh, almaxraj assadis achar fukk ak juróom benneelu maxraj bi moom ba léegi ci achafatayn la mi ngi dellu ci ñaari tuñ yi mu ne huwa ma bayna achafatayn wa yaxruju minhu xaraf yi foofu diggante ñaari tuñi foofu bañ amu fa place lamiñ amu fa place ñaari tuñi kese ñooy liggéey ñaari xaraf yi wala ñetti xaraf yi ñu fay génne al waaw waaw moo fay génne wal ba ak ba wal miim ak miim illa anna al waawa bin fitaxihima lu dul ni bu fekkee da dangay tudd waaw sa ñaari tuñi da ngay gis ni da nga ko kebale waaye dana am benn yetliir benn espace bu ndaw boo xam dana fa des waaw waaw da gis ni sa tuñi day mel ni lu génn ba pare am espace bu ndaw bu fa bu fa des waaw waaw aw wu wi c'est non lay démé wal ba wal mim bu fekkee ba ak mim nak mom bokoy tuddu bin tibaqihima ñom ñaari tuñi dafay kebaloo dégg nga dégg nga falmuntabiqu min alshafatayni inda albaa huwa altaraf alladi yali albashara bu fekkee nag booy tudd baa li nga xam mom moy tëju ci sa tuñ yi li nga xam mom mo mom moy li tuddee moy moy biti tuñ moy li ñu doon tax naan waaxiru shafa mom moy ba ba ba fofu fofu mom moy ñaar fofu ñaar tuñ yoy fofu ñoy ñoy teglo wal muntabiqu min ash-shabatayn inda al mim bu fekkee ne nag moom bu fekkee da ngay tudd miim li nga xam ne moom mooy tegaloo wa tarafu alladi yali daaxil fam mooy mooy wàll bi nga xam ni moom moo méngi sa gémmiñ bi mooy kon biir tuñ ba mooy ay batni shafa miim gis nga ba miim kon ñaari tuñ yi danañ danañ waaye tampaloo gi am na benn sew sew bo nag bu ci nekk mooy bu fekkee boo tudd baa waahiru shafa moo koy def ànd ak ni boo ko defee baatanu shafa wér na waaye waahiru shafa moo gën boo tudd miim nag moom baatanu shafa moo koy def ànd ni boo defee waahiru shafa moom it wér na dégg nga euh, fukk ak juróom-ñaareelu maxraj bi nga xam ne moom moo ci mujj moom mooy maxrajul gunna mooy al gunna fi nga xam ne fa lay génne gunna nag du xaraf dégg nga wa huwa aqfa al anf mooy fi nga xam ne mooy fi gën a sori ci bakkan wa yaxruju minhu axruful gunna xurufu gunna gunna bi ñuy jàng sifaati sax danañ ko jàng melokaan la boo xam ne dafay gaar xaraf bi am xaraf yoo xam ne dafa taqaloo ak ñoom saa su ñëwee dafay am gunna mooy ak nuun ak nuun ak miim ñoom ñaar saa su ñëwee dafay am gunna dégg nga léegi moom moomu fu muy génne mooy fi nga xam ni moom mooy fi gën a sore ci ci bakkan moom la ñu tuddee al xayshum xayshum dégg nga man xayshum xarqun latifun min aqsa al anf ila daxil ila daxil fam yaxruju minhu sawtun adan لا عمل للسان فيه يخرج منه الميم والنون الساكنتين المظهرتين أو المدغمتين أو المقلوبتين أو المخا أو المخ أو المخفاتين من موم خرق انا انا ير ير بوندا ولا بو لطيف واخاني بو بو بو سوله واخاني ميغي جوغي في غنا سوري تي جيمي في غنا سوري تي بكان جيم سبيت جيمي نيكول لو خامني تاي من نان لا تيغال لوخو نلا في لا كوي داف تطبيق دافاي ابليكي رك مو دال دي فين ميم مو تي ген سكون سكون جي مو خام نون ساكنه لا والتنوين انام نون فكي نون ساكنة له نجفن دي كوكو فخمني إظهار له ملني باتو أنعمت جسنا أنعمت بوكو بخي ديجا سانتير نعمنا بين صوب ونداو بو خمني موي دولي في النون بو ولو فكيني دنكو آه، إدغام يملني من يعمل جسنا من يعمل أمنا بين صوب ونداو بو يديك تبير بو خمني موي ديجي في النون بي آه، إدغام أو المقلوبتين موي فكيني دنكو قلب موي دنكو صوبي ملني ميم آه، آه، الاقراب ها ملني ميم بعد غيسنا ميم بعد ميم بعد ديغا سانتير بنن سون بو نداو بو خاني ميغي جوغي سي باكن ديم سي غيمين او المخفاتين ولا فكان دنجكو ديف اخفاء ملني ميون قبل غيسنا ميون قبل انا بنن سون بو نداو بو خاني موي فاج فوك لول لا نيي تودي الغن دنج مولا نانا الغن اصل في النون والميم غيسنا موم غن جوسان لا سي نون اك ميم ساي سونو نيوي رك دانيي اند غن دنج فيمنع الغنة تجري في الخيشوم كجريان المد في الجوف ولكن يختلفان في أمور غنة دخل داوتي في خيشوم كم مد نمي دمي في الجوف فهنا حروف المد الواو والألف والياء أخبني بولن الماسون يوم في حروف المد نيغا خامي سي آه، سي جوف الفم لي امي خاني يعني موي سي بي جيمين نيغا خامي لا ميني امو سي ليغي بن امو سي ليغي توني امو سي ليغي كوم نين كو واخيون خامني بوني مو غيس نغا داغي غيس ساغي بن كو اوبيكو air la bo xam day dégagé wu amul lenn loo xam ne moo ko tudd hi ah wa gis nga xëcc yooyu yëpp amul lenn loo xam ne moom moo ciy feeñ noonu nag nga xam noonu la xuruful jawf di amee noonu it xuruful xuruful gunna noonu lay amee ci xayshum waaye wuute na ak ak ak madd mooy anna al madd tam tamnaul idgham fi ma yumathiluha bi xilaafi xurufil gunna bu fekkee xuruful madd dafay teer dafay bañ moom ñu idgaame ko mooy ñu boole ko xaraf yi nga xam ne ñoo nduróog moom وفكر نفرو فلغنة حرف يخم ليون نرو بنجاجة لمن لنياري ميم ولا نياري نون نانغو نانيو إدغانكو وفكر ليون سكر بنجاكي بي كون يكار نان مون نجو تخفوف إن شاء الله وكودي في بند بير نجو نرى لي تعمل بنن داتو بس موي صفات الحروف يلا يلا دفل نجو ديگر توفي جاهر صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك شرون لا إله إلا أنت أصافر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته